Sénégal yëpp ñu ngi leen nuyu tey nag DA TV ak seen info bi TV ak STV ñoo ñëwoon fi Madinatu Salaam ci waañu Sëriñ Saaliwu ñu fekk ci jëwriñ Fatima ñu fas yéene nuyoo ak moom laaj ko li nga xamante ni mooy ndigal li wàcc ci kaw ñu ngi lay siyaar soxna si waaw Fatima ndigal képp lu ñuy jëfe ndigal ñun ñii suñ te xam ne moo gën ci ñun sëñ saa cuun suñu yaakaar tey ëllëg waaw suñ beccu xale bi suñ beccu ma nga ndakaaru ah, foofu sax la safee ndax ndigal li ndakaaru la woon jamonoy baayam ndigal la ko sëriñ Saliou Mbacke yaakaari jaam yi joxoon mooy muy gàmmoo Ndakaaru di fa gàmmoo kon gàmm gi delluwaat na fa kon mel na ni lépp neexaat na ñu ngi ci tàmbali ci njëlbeen waaw fa sëñ fa njaale woon sëriñ Béthio baayam moom lañ ko jaarale moo tax ñu ngi ciy sant gu wér a wér ndigal jëfee murit ndigal ndigal képp waaw ñu bég ci lool tey sant sant bay dóor pooñ sant Serigne Saliou bu baax di ngeen ni ko jëwriñ ji waxee eh, ak cant lañ ko def ndigal li nga xamante moom la wàcc seen kaw waa mat léegi ñuy séntu beneen gàmm ci kanam muy 17 avril ndax di sa affaire bi dina demee nii wala. ah ñu naan paak kenn di ko jiitu ci mbaram. Mhm. noonu nii la demee. ñun ay taalibe lañ te taalibe ndigal rek lay déglu lu mu mënti demee it bëgg rek lañ ciy jëlee barke sëriñ Bécco ñun ku dul sëriñ Bécco bëggun la te taawam bi ci moom moom lañ koy xoolee te xam nañ ni baayam ndigal la daan jëfee te moom it ndox du bàyyi yoonam foofa la ne bu ñu woowee fii ci madinatu ñu ànd kook moom bu ñu woowee kuli koro ñu fekk ko fa fu ko neex rek incha allah. waa léegi pare ngeen pour fekk ko Mermoz euh, wala pare ngeen pour gàmmoo fii. ci li ma yaakaar fii danañ fi gàmmu ndax si sëriñ Bekk daan def ay waañ daanaka ci waañ yooyu lañ ne danañ togg benn nañ ko jox bokk taalibe yi bu guddee nañ defaru ba rafet fekk ko njurul ànd kook moom. santale ko yàlla suñu borom muy bés yonent bii ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ci kàttanu yàlla mbokk Sénégal yi dégg ngeen loolu ah, di eh, ñu ngeen fii di Madinatu Salaam di waañu Serigne Saliou Thioune digal eh, nag ñu ngi waañ wi Madinatu Salaam waaye bu ngoonee dañuy defaru ba ja fekk Serigne Saliou li nga xamante ni moo di gàmmoo ñu ànd gàmmoo ànd ak liggéeyal Serigne Saliou sa kàddu yu mujj lay joxe. xanaa sant rek ñaan mbokki taalibe yi ñuy bàyyi seen xel ne yoonu murit ndigal la baaxoo ak jëfee murit day topp ndigal di ba tere maa ngi ciy ñaaxaat mbokki taalibe yi ñu góorgóorlu ci lool te xam ne sëñ Muntaxa mii sëriñ Béthio ko wax ne waa yoonu murit nañ rafet njor te xam ne lépp baax na kon nag ñun santaan nañ ndokk ban ànd ak sëñ Muntaxa sëñ Sane Ndigal Thioune yan na fi yàgg te gën a wér barki Serigne Badio